mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah Feus Net dellu si nawaat niñ koy defee di bu ne ak vendredi bu ne dañuy tàmbali fii di Sénégal seen kër muy mbir boo xamante ni mbir bu yéeme ñu ko doon coow ci suba ba tey mu soxal kii di njiitu Moustarchidine wala Moustarchidaati di Serigne Moustapha si gannaaw bi nga xam ni dañu nemmeeku benn néew goo xam ni dañu ko suul ca gannaaw këram euh, kon coow lool noonu dem na rek ba euh, sulli ay mbóot mbóot yi mooy xibaar yi bàyyeekoo ca Libération Online mu mel ni kii rek kii nga xamante ni euh, moom la ñu woowee néew boobu nekk mag goo xamante ni dafa sësoon rëkk ci Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum mi ngi sant Touré moom mi ngi génn àdduna laata ñuy dugg ci feetu korité bi ñu génn fii ci Ndakaaru gannaaw lu ñu mel ba ñu ko ñaanalee naka la ko diine santaane yëpp defal nañ ko ko ba daal di koy jébbal boromam ci benn terrain bi nga xamante ni dafa nekk ci ginnaaw këru kii di Moustapha Sy euh, fële nga xamante ni moom mooy ca tiwaawan ba ñu demee ba xóotal bi la mu mel ni kii suuf soocu ña ko denc dafa nekk suuf boo xamante nii dafa am coow euh, te it ki nga xamante ni moom mooy ki santure Touré nekk taalibe Serigne Cheikh moom la mu doon sàkku rek mooy bu ca ba muy dund ne moom dafa sës dëkk ci Serigne Cheikh Tidiane si almaxtuum yàlla na yàlla yokk leeram te bëggul tàggook moom mukk bu génnee àdduna sax nañ ko denc foo xamante ni ay njabootam fa la ñu nekk moo tax gannaaw bi ñu ko defalee lépp lu lislaam santaane lañu ko daal di denc ci ginnaaw këru Serigne Moustapha Sy googulee kon coow lool nga xamante ni dafa am tey ci suba ñu koy ŋawti ngawtee dafa nekk suuf bi nga xam ni fa lañ ko denc dafa am coow gannaaw ñi ne ñoom ñoom moom boobu boobule suuf maanaam di terrain bi dañu defoon plainte ca la ñu sàkku ñu daal di sulli néew boobu am feneen fu ñu ko daal di yóbbu kon coow loolu jeex na gannaaw loolu bu ñu jugee foofu ñu dem ci euh, Dakar Buzz Dakar Buzz wax ñu ci jinne bi li nga xamante ni dañ koy tuumaal jinne ndaxte li muy rëcc ci kaso bari na lool di Baye Modou Modou Fall alias booy Djiné nee nañ ko nii fële ca Missirah yoonu Tambacounda kon gannaaw bi nga xam jàpp nañ ko Euh, ci fukki waxtu ak benn maanaam 11h44 minutes foofu ca Missirah ci route nationale 7 Baye Modou ñu ne ko niib ana ñoo ko def di section de recherche gendarmerie ñoom ñoo ko daal di jàpp mu mel ni ki foofu ca section de recherche daa mel ni ki rek ci juróom-ñetti agent administration pénitentiaire ñoom ñoo doon laaj ki nga xamante ni moom mooy Baye Modou ak ñëmul la ko lool ba muy rëcc kon démb ci 10 heures patrouille bu brigade routière bu Tambacounda euh, ñoom dañ daal di teg loxo benn moto te max bi nga xamante ni nee nañ euh, kii di booy Djiné ci la yéegoon gannaaw lu ni mel ñu daal di def benn enquête kon bile moto ñu ngi ko teg loxo foofu nga xamante moom mooy euh, ca Tambacounda ci route nationale 7 googule gannaaw ki yoroon moto bi da doon wut essence di wuyoos turu daam si moom teg nañ ko loxo ay minute tamit lii di oto bi nga xam fa la duggoon muy marque Ford euh, ka ca nekkoon doon ko dawal di Cheikh Ndiaye àndoon nag Abdou Faye ak daam si ñoom ñëpp daal di nañ leen i jàpp kon mu mel ni ki rek déglu nañ leen du toll si juróom-ñetti waxtu démb kon ñoom ñëpp daal di nañu nangu wax tamit lan la ñu sekk ki nga xamante ni moom mooy jinne bi. bu ñu jógee foofu dañuy daal di dem ca Sénégal wax lu jëm ci wàllu mbiru franc yi dafa mel ni ki rek ñoom dañu doon waajal benn ndaje bu mag a mag a mag fii ci ndakaaru samedi bii ñuy dëgmal bu ñetti waxtu jotee ci benn hôtel bu nekk fii ci ndakaaru seen ndaje boobu ana lan lañu si sababoon mooy rek def benn assemblée générale bi nga xamante nii dañ ciy tab kii di seen frère boobu noonu Charles Médor xam ngeen ne ñoom frère la ñuy wax seen i àndandoo yi Charles Médor dañ ko bëggoon a tabb mu nekk lii di nouveau grand maître euh, bu grande loge du Sénégal maanaam mu nekk ko nga xam ne moom mooy jiite faramason yi nekk ci Sénégal gi yëpp waaye dafa mel ni ki rek euh, lii nga xam moom mooy ndaje boobu nee nañu ci ay xibaar gouverneur bu Ndakaaru daal di na koy tere. nar nañ ci indiwaat beneen coow beneen coow bu weesoo lii di franc yi ci wàllu góor jigéen la ñuy wax dégg ngeen coow li ci am fan yi yëpp ak marché yu ñu ci amal kii moom benn góor jigéen la moom dafa ñëw di défendre li nga xamante ni moom mooy cause góor jigéen nee na fii ci Sénégal dafa mel ni ki rek euh, respecté wuñu ak ak yelleef góor jigéen yi ndaxte moom def na benn appel ci Sénégal bi yëpp su fekkee ne dañu bëgg a lii di homosexuel dafa nekk loo xam ne teguwul ci yoon ndax ñii di góor jigéen ñi dañu am seen àkk ak seen yelleef mi ngi sàkku ci waa Sénégal ñu nangul leen lu ni mel te moom nee na du dellu ginnaaw mukk ngir di gën a mën a fësal li nga xam ne moom mooy ak ak yelleef góor jigéen ñu daal di koy respecté teg ko ci yoon fii ci biir réew mi nee nañ daal ñoom du ñu bàyyi seen loxo mukk te it moom sax li gën a doy li gën a yéeme ci kàddu yi nga xam ne wax na ko ci vidéo bii nee na góor jigéen yàlla moo ko sàkk te dañu am seen ak ak seen yelleef